asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatu woo di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant mbokk téléspectateurs yi di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñu seetaan travers du monde di ñi nga xamante ni ñoo nekk fépp ci àdduna ñi nekk ci Seneweb beeg Facebook beeg euh, lu mu tuddati ñëpp daal maa ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di nuyu di nuyu fans yëpp di nuyu ñëpp di dem ba waa kër Kër di leen nuyu ñoom ñëpp. fan si nek foofu ñoom ñep dinaa leen jotna appel yi jotna li nga xamante moy message yi ñom ñep ku ci lim nak juum jappal ni yene ngi fi waaw bu ko defé ne dañuy dem plateau tay di momé va xam ngeen momé va momé va c'est une un clip euh, Fallou Dieng Moome Vent c'est le momé va Fallou Dieng euh, clip bu bees la boo xamante ni fii lay njëkk taxawee fii lay njëkk kii fii lay fii la ko njëkk teg maa ko njëkk teg te ay clip nouveauté laa la ñuy jox bu ma jugee ci Fallou Dieng dam lañ ñu may xamndal léegi nag régie bu fekkee pare ngeen ngeen may ñu moomee vent ngeen tar ko attentivement et tout doux et tous les esprits tranquilles

doon Fallou Dieng si yaa moom vent mu doon loo xamante ne niveau la euh, yàgg nañu defal ay nouveauté da momé vent ñi euh, belle félicitation belle continuation bel retour de Fallou Dieng à tous les de coin naan le nii le Sénégal dañuy évoluer chaque jour mais ñii duñ leen wax ay ay duñ leen duñu chaque jour dañuy gën a jàngal euh mu doon Fallou Dieng Sala Fallou Dieng Sala en action le bel de clip de la salle jeng Sala tey amna invité gu maga maga maga maga mag invité goo xamante comédien la mu doon comédien boo xamante ne nekk foofu nga xamante ne ci liberté 6 ku ne xam na ni surprise laa koy defal mais avant boobu damay ñëwaat tuuti balaa ma kaa dugal ñu ñëw si xam xamgal waa ceddo ñu xool seen kilibu ceddo bi man non rési mais ma ceddo un petit petit ñu dugg si clipu ceddo bu bees bi ma installé sama gan yi nag ñu doog a ñëw ñu tàmbale mbir mi mbir mi noonu lañ koy tàmbalee saay su ne ak nu ne ak nexaat naxa tëkki yooyu daal xam nga defar bu ayca

teddoo nee naa leen saay su ne bis may déglu xam ne man daf may roof tàngaay di may roof jaddi jaddi di may roof li nga xamante ni mooy mooy kii Amignon 2. waaw dëggantaan waaw kii nag boo leen gisee mu taxaw fi war na leen jaaxal ñu ah xam nga Sanekh numéro 2 am na euh, euh, euh, Ngañ numéro 2 am na Mignon 2 ngeen doon coow dëkk yëpp di koy laajte anamu anamu anamu Mignon 2 ngi nii Mignon 2. waaw ba bàyyi la nga nuyoo. salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu man Mignon 2. waaw maa ñëw fii parce que toj télé bi. maa la loolu def ba mu baax. def ba mu baax waaw. di nuyu waa Liberté yëpp. maa ngi nuyu ñëpp waa Liberté 6 sama gars yi bàyyiwuma kenn. bàyyiwoo kenn dëggantaan moom du cokkataan du si bi xotaan. maa xam ne poroxaan ñun fa lañ jëm. télé yi def ba mu baax waaw. ay million de. tey sama waa ji. waaw Liberté ngay toj. xam naa leen détail ba fay si gars yi si ñoom Niku ak ñu Moussa. waaw maa leen di bëggee ñoom ñëpp. Ah? waaw fii moom dañ ko fas yéene toj rek. foofu dafa war toj. si gars yi foofu si taatu école bi. maa ngi nuyu maire Ndiaye. maire Ndiaye waaw ma laaj la benn affaire léegi man dama bëgg nga woyal ma Yandé Codou. waaw Yandé waaw waaw loolu sama ko waxee dama ciy sawar. parce que moom séeréer pire la. ah bon waaw. tey million deux. tey fii toj de ñoom. yee fere jega geeco xaamo sumsumooy ndeysaan yee mane am diyo njogay ne xem yee ndeysaan yee ande ko du seed hmm. um datangano saate faa um jing maanga maalo fo jeeb hmm. um gar merino Sénégal gar na Dakar jeedeno yee yee mbaɓe komi dere gegayo im garanga mene no sade fe xam piboɗa fel anda mene sénégal o garanga mene xana fel o fiyanga xana fel am ndi wom layta njowene xeme eway samb toj fe dafa yàgg ci man wuyul téléphone allo parce que wuyul téléphone waaw salaamaaleykum laa soxla woon am di yow maa ngi lay déggee. mais maa la raw fii ay am la bëgg rek te yàlla ah? la bëgg rek te yàlla tax def neex na. bilaay maa la raw te yàlla tax kii na million deux loo wax ci million deux. Ah, ah am di daal mi ngi noonu kooku daal mi ngi noonu rek. million deux la tudd. million deux. waaw. loolu foor na. loolu foor na de. wécc na foor yow. ah. man na for ya, ah kon jeex yow loo man fatu ani rama yo rama dafa am dessé wa wi man nak may jalala nak man nak sa xarit la sa dom lay ah wa ah yo yo nga tudu fatu man fat la tudu sante gay njoora ah fat dom bay ah yo fat sama dom bay nga ndeysan li neex na yow loolu foor dara fay ko ay waji dara ko ma fay dara du ko fay. dara du ko fay ku ko jéem a fay xam. billaay dara du ko fay. la du ko fay. bu soobee yàlla kenn du ko fay kenn ku ko sañ a fay ah, ah, <laughs> kenn na ñemee <laughs> Kër Massar. Kër man a Kër Massar jàpp buun jàpp ay Sangalkam yëmbal. ah Kër Massar. Mhm. ah. Euh, fee yëpp. seen message yi ñëw na sama fan si nekk foofu yëpp maa ngi la ñu nuyu. ñun mhm, ñëw seet si ñu kon. ah. ñëwal seet si ñu. man dama fa bëgg kër. na waaw loolu laa bëgg kër laa fa bëgg. loolu dara boo ñëwee ñu may la kër yow. kon jeex na wax leen maire beeg ak chef de quartier beeg euh, sous-préfet ba ak ñëpp nañ ma dajaleel kër. waaw am na sa numéro laa bëggoon. sama numéro. waaw jëlal ma jox la ko. ah. jëlal. jëlal. 047 24 24. jeex na. 047 24 24. bon yow léegi nga ni. ñu ñëw do yow. waaw ah, aar moom dama ci yàgg. Mhm. parce que xam nga anglais bi daf ne who all the aar yi. ah kon da ngay woy jazz ak yooyu. yëpp loo xam ne ma koy baax. jazz non non damay jazz. non Moussa Moussa Moussa vraiment sa élément bi da ngay waaru kii mënu woy jazz waaye ñëwul ñëwul jazz ma xool. ay sing now baby mun a soobu la wetti ba nga xëy ni daam. you wanna say baby. Hmm. yeah. hey baby let's get we can jam. I now. This song. know to Yeah. here. ay senginaw forget, maba kare mbagma hino sen ma mbal duma rek yiri wiri jare ndare tawon wal jare ndare ay foke boke gode foke foke batke bajak boke boje jaga foke fuse wal pande foke sabat you he love I hear him run you singing now I hear you I single, single mama. Yeah. Your mama, mama. Mama, mama. Your baby, baby, baby, baby, baby, no sound. You want us again? I sing it out. Yeah, I'm gonna have a baby. A baby, Louis, we see the Yeah. Yeah. ñu clip tuuti ñu ñëwaat may ñu clip may ñu Aliou Bender rapidement vite fait ñu ñëwaat. waaw you wanna say good man. noo gën a sàngal rek noo koy. you wanna say bad ñu ne ñu aar aar bu ngeen paree rek. may lañu benn clip rapidement. ñu ñëw léegi nii. señales. ko nekkoon señ Bas mu doon euh, produit baax yi nga xamante ni moom la Sénégal gépp doon ku laajte mu nekk señ Bas di joxe saabu yu baax yi frotté yu baax yi ak nàkk yi nàkk yu baax yi am na benn émission bu mu defoon démb mu ngi doon daw gaa yaa koy laajte boobu ba léegi ni après resté nañ leen tegalaat émission boobu euh, bu sëñ Bas bi ak Cheikh Taalif boobu ba léegi gaa yaa koy laajte tey nag boo gisee ma amaat tey jii sama gaa yi nga xamante ni couple bi leneen ay couple lañ Marème Marème lan mooy sa problème yow. Ah. bala dara di xew dama nuyu waa Sénégal ba pare. na ma sante yalla julli ci yonent may sante sama ñaari wajur eh, di nuyu sama doomu nday Degen Ndiaye nday Fatou numéro 1 nday Fatou numéro 2 ak mam jaar sama mag bu baax. di wax nak wa Sénégal affaire fi la la chaîne sénégalaise. di bëggal gaay di wax affaire bi nak ci ki la mais manam teug tama mënu andaw ko tat ki du ma ak mom am di. du tax du tax du moom kii feex lo fa duggé day courant d'air. Oh. non du ma ak iya, mom yo xam nga ne samay jënax ñoom mun say mous yaay ngi benn affaire moom mi eh, la Pape. allo. Modou. waaw ñu ngi ziar. waaw ma la Pape Camara. ah Pape Camara na def. waaw ah, ñu ngi ziar wër wër. waaye léegi laa jàll gis la. waaw di la dara ñu ngi de saa yi kontaan naa de. mais kontaan nañ de kontaan nañ. waaw bu la dara. affaire moom kenn moomu ko jàpp bañ a bàyyi rek. waaw an sama gars nag.

ah non non non non te nga ma ko may rek kon. non du ma la ko may yow doot ma may awa. non may ma ko may ma ko may ma ko. man la magam man la magam. yee ana awa. awa waatewul waatewul. ayee jaajëf waay. ok am na sinon nice am na. waaye nice cool nii jaajëf waay. mais ni ni ngeen doon neex na trop. jaajëf waay jaajëf waay. jaajëf waaw kii moom suñu gaañ la suñu lépp la jàpp si moo. dëgg la dëgg la dëgg la. non day dem day dem day dem kenn ku téye. merci ah, Pape jaayee faay. kenn <laughs> ko téye kenn baa ngi nii njëkk jabar bi moo ko ñëw seet si nii naa dafa ñëw ah, eh, télé bi jabar bi ñëw fàq ñëw. couple bi eh, am na loo xam eh. nga toog kër yi non lan nga may fekk see fii ah, lan nga may liggéey. mais lu ko wuy leen wuy leen seen invité bi. allo. waaw moom waaw ok xam naa ci kanam incha allah. voilà d' accord. waaw jaajëf waay Pape. ok ok après ñu tegal ci biir incha allah. quand je sors, viens me, me, me, me surprendre comme ça Moi, ça me plaît pas du tout. Parce que je suis fou de, je Moi, je suis fou de toi, mais folle de toi en même temps aussi. Mais il y a des choses, ça, pas content. Mais hein? il faut être attentif quand même. Non, attentif du ma parce que dafa am loo xam ne neexuma. Toi non non Atlantique ak yëpp laa ci yemale dafa am loo xam ne neexuma. oui toogal kër gi nga xaar ma il faut soit confiance dans la dans la vie. Ah? oui je suis vraiment dama ko mën a xaar. ah désolé bëgg rek la ñeneen ñi bëgg lu ma ta ma ko weccoog lenn. mais kon dafa loo xam ne waroo ko def. ah nga xaar ma. dee ma xaar. wóoratul dëkk baa ah, wóorul ah déedéet waay. xaar yàlla sax fi mu toll dañu commencé xaar dina fi mu toll mënatuñ xaar dara. yaa ngi dégg am na yoo xam ne ko war a mën a bàyyi toto xaar yalla go xaar yalla ñaata ni ngi xaar ñëpp di xaar man surtout xaar mbay ma kubu jaar ha nga taxaw di ma def ni dem xaar parce que je t'aime je t'adore bébé si tu fais comme ça ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi moi ça me plaît pas je t'aime bébé toi aussi oh je t'aime waaye waaye waaye waaye waaye waaye dafa dank malade laaj yow ki la la la loo ko toppee laa bëgg xam man dama gis macha allah. il est beau il est gentil il donne de l'argent. macha allah kan loolu mën nako da kan te su djugul ci mom rek. lu ma te bëgg la bari bëgg. su djugul rek sama morom dina djuk te la ci bañ. ta bëgg bu ko ñàkk. macha allah. kàlla ah xam nga kii. moo ko bàyyee noonu kirdan la kirdan la. waay xam nga nek ya bu su kirdan rek ngay xalat pour dessero mais kon am na yo xamne nak man duma ci mëna a da fa wara mëna dal jàmm. xiif da am na kirdan. dalal jàmm rek dalal jàmm dëkk jàmm gën. waa léegi kon mu nekkoon benn extrait boo xamante ne jël leen ko may mbokk téléspectateur bi ñi nga xamante ñoo doon seetaan euh, léegi ñu wax leen temps bi comme ñu bëgg a léegi amaat na yeneen invité yi war a ñëw ngeen tàggatoo léegi la ngeen ñuy may mbokk téléspectateur bi. mooy may woon damay tàggoo su may tàggoo daal ñu ngi remercier ba pare man. ñoom yow yow la fo yow ko ko war a remercier laa ko xam ne. ku mel sama doomu ndey Dégène Ndiaye. macha allah chef de service. doo kooku lu ma wax sama Ehm, Fat Sakho uh-huh. ak Tande Ami ak sa maam Jaara bëgg sëñ Fallou ak saa kooku rek laay bëggee man dëgg la kooku rek laay bëggee uh-huh. ak Ndeye Fatou numéro un Ndeye Fatou numéro deux uh-huh. bàyyi ma waa Parcelles waa Suprême ku ci mel ni Aliou Mbaye jox ko biche Aliou jëlal biche man bii yaa may daaneel man ne ko teg si bëmb rek waa Parcelles Suprême ne ko bébé à suivre teg teg suñu boobu suñu suñu foofu ne naa ni téye ngur ndaj bu ñu kenn laal bu ñu kenn jege dem ñëw roof yàqu jëm. dem te ñëw. waaw tàggu naa leen. taxawal. man nag maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa kontaan parce que man am di deux. Mhm. man li ma gën a neex mooy tey ma jaaxaloog sama turandoo. loolu rek laa doon ñaan to am naa ko. Mhm. te j'espère que du yem fii. am na bagage yu bëri yoo xam ne nag maa ngi ko denc. Mhm. xam nga xam naa sama gars sax dañ jaaxle lu tax ma taxaw fii. dugguma ci yenn bagage yi. mais affaire dafa ma bett parce que dañ ma ko yëgal nii rek ma ñëw. def benn affaire bu set. mais loolu nag mu bëgg nga amul benn problème yow man lay doon voilà. waaw léegi nan ban numéro la la mën a jotee. waaw mu jot ma ci 407 61 22. 407 407 61 22. waxaatal waaw 407 61 22. am na ay affaire yu bëri yu garaaw a garaaw mais maa ngi gërëm Awa Cissé. Mhm. di gërëm ñoom Mbène Ndiaye ñoom Bilal. ñoom Kader Thiam bàyyiwuma ñoom Ben bàyyiwuma ñoom Malick Wat bàyyiwuma sama waa bàyyiwuma Mame Binta tàmbe bu neex bi bàyyi moom kenn daal maa ngi gërëm ñëpp parce que mu limee damay juum bàyyi ma waa Cité Millionnaire Grand Yoff ak Sénégal yëpp ndax xam nañ Mauritanie Gambie ñu toll nii dama war a ñëw rek toj ba mu baax. mais ko bàyyi sa loxo. na waaw. kon nag gars yi rési ba leen mu ne may benn clip mu nekk am nga dundalaale ko gars yi ñu dugal ngeen ne Sénégal mbokk kii kii ñëpp doon laaj ki ñëpp doon xaar dafa jafe muy Ndeye Diagne Salañ Salañ koo xamante ni Salañ Salañ Youssou Ndour nee leen pirate kat la moo dàq pirate ci àdduna kii moo woy Salañ Salañ Salañ Salañ boo ko déggee ak yéyal ma mbiskit bu tajal ma mbiskit bi moom laay bàyyi nday wane sa bopp tuuti rek nuyoo mbokk téléspectateurs yi ñëpp ngi Sénégal yëpp ngay xool. laa ilaaha illallaah waaye foo ne woon. làqatu def samay bagage rek. ah. làqatu rek di def samay bagage léegi da nga ñëw retourné waat encore. torop torop ñëwaat pour bégal sama fans ak sama géer ñu baax ñu la ak ñi ma bëgg ak ñi ma sopp di leen wax retour ndey jàllu ñëwaat na yaayu maam Cheikh. Mhm. xarub loo ba ndende ci am ma jox ngóone mi ci làmbaay déema ngoom ak déema ngóor géwél bu gën géer maa dellu si. Eh, géwél bu gën. géer. yow yaay géwél ah sama géer yu baax yi nak nag ma leen man ah. maay nak géwél bu gën géer nak ah. géwél bu baax nak géwél bu riis ah. ko am maana bu am géer yu baax ma sha allah am ni mi ñoon ah déet ki kii gënoo sama géeru de ku melni ni Mariama ndjay mu ku na mar yaay Khalifa ndjay nuy na la nuy ajaratu Njóoba Caam kor muur gise fàdd maa jongu bur séréer sëra koot borom tey leen babu jong borom jëw leen sa ko mi mom si ma maa ngi lay nuyu ah am di waaw waa waa ndey waa am di waa nga ne yow fan nga nekkoon loolu man ba léegi question bi ma la posé ba léegi wax nga ma ko de. man. la ah. nga la lu woon la ma la la ma la ma tax dëkk bee nga toj àdduna toj lii dox nga mën ko bay bëgg a dee àdduna yëpp ngay jël say bagage da koy tasaare ci lekk xaalis. <laughs> xaalis sànniwuma ko fenn. Ah. damaa ñàkk ku baax. ndem di mi si gànjoon ma xuri ji ci daaw mi sukk ma ci dégg bu rëy ba gànnaa nga siin gànnaa nga meew mm. sama yaay dama caatloo bëggoon ma loolu yërëm ma loolu faale ma saala bi ga njaay gàmbeen mu génn àdduna mm-hmm. sama xel jaxasoo rek ma lalu loolu dong la waaye ñëwaat naa waaw ñëwaat la waaw léegi ñëwaat nga sur terrain torop sur la base sur la base fii te ku la fekk si sa yoon ay tey ngeen dee ah ngeen dee tey ngeen la ñi dëkk bee ngi woote. dëkk bi xamam la. ñi nekk si tam xamoo ci dara sax. cerveau baa nga xar léegi sëñ Bas lay dem xool benn benn benn benn benn extrait bu ndaw si sëñ Bas kii nag saabu bii boo ko sangoo. waaw da ngay am bayre te kenn la kal ah bii de moom nañ bii baax bii may bu baax sëñ Bas. saabu bii boo ko sangoo kenn la kal ay ay waay kalaatekat yi. naak bi la nga jox ñeent fukk ak juróom-ñeent. bii dëggantaan Njaay. bii dëggantaan voilà bii mooy mu ngi nii naak bi boo ko jë waaw xoolal kaa kaa kaa ñu xool extrait sëñ Bass kaa ñu xool kaa ñu bi moom diggante bi 18 dañ koy teg léegi nii xaaral parce que gars yi dañ ko doon laajte. boobu ba léegi nii ah, extrait bi ngeen tegoon démb seex Talif ak Bas ak kii sëñ Bas boobu ba léegi Sénégal gépp koy laajte mais may leen ko tuuti rafet na xam na leen trop mooy fa ngeen di jaar ba jot sëñ Bassirou Ndiaye bindal numéro bii ma lay jox man boo ko soxlaa moom laa koy jotee bindal bu 99 93 77 717 99 93 bindal ba rek moo nekk noonu écran 77 299 11 68 77 299 11 68 bindal ba rek 77 871 46 46 77 871 46 46 bindal beneen bi fixe la 33 871 09 72 33 871 09 72 Serigne Bassirou Ndiaye nekk ci croisement Kër Massar cité Adja Marine Diop ci numéro yi defal leen suuf écran bi ci nga koy jotee nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla ñu xul ci biir waxtaan bi Serigne Bassirou Ndiaye euh, fii Sénégal dafa am loo xam ne que dañ koy seetlu gis nañ ne fajkat yi ñaankat yi bari na lool mais ñu gis ne bañ nañ ko ni ñu koy question la keneen mënul dara. biir mooy ci lu baax la seetlu moom. ñu gis ne fii nga nekk. maanaam macha allah bagage yi ñu fi gis rafet na. Hmm? gis secrétaire boo xam da koy gis ci suuf. secrétaire boobu boo bëggoon a rombee nga ñëwaat beneen nga duggaat beneen bureau gisaat ñeneen ñaar affaire yi daal am organisation bu set boo xam ne mu bëggoon xam loolu loolu la xelal na looy def wala sa xalaat mooy maay sa maay mooy dem bu baax pour ngay teg lu mel noonu. waaw jërëjëf euh, Cheikh laaj nga laaj bu am solo. muy wàll li muy wax maanaam euh, côté euh, wàll li ñuy wax organisation dafa am solo ci dund nit ki maanaam doomu aadama dafa war a dund ci wàllu côté li ñuy wax organisation maanaam nga organiser sa dund. waa jaa ngi kii laa la doon wax. lu ci jiitu mooy kii nii laa la doon wax. kii mooy sëñ Bass. bi di bañ ku ko doon ku ko doon laaj. ku ko doon laaj. xamanteni tay ji kep ko xamanteni sa yaram dafa ër dafa ër yaram bu ër nga am ay ndoxu siti am ay lepp sabu bi ngay sango sabu bi boko sango ba pare en même temps dafa bax ci artiste dalay may bayre ma sha allah bayre bayre ngi ni hmm. waaw ki nak la nak bi lepp bo xam ne da nga lepp ñu liggey li liggey bu bon nak bi wala sa du di de wala sa bir di di di di géex di di di def ay affaire ay façon yu bon yoyu nak bi boko le

Sénégal museo ngi nii. Ah ah? lii moom lii moom gën a ràqatiku. lii neex na am da leen jox sawarte. ah ba pare ah yow yow yow dañ man yow man man lii bu ci jógee. daa mel ni laal na ma jàmb ma jàmb na ma. waaw léegi bu ci jógee dañu desati bëreetul. ay ah. juróomi minute ñu dese waaw. Ah, ah. waaw ay juróomi minute ñu dese de. juróomi minute waaw te ñun wax lu mu gàtt gàtt gàtt moom yow dañoo dañoo war a am sa temps spécial. ak sa jour spécial waaw parce que invitation bi xat na. Mhm. Euh, maman bu ñu lay euh, jot boobu ba la ñu doon jéem a jot. Mhm. seet nañu fune sa numéro. waaw ut dañ ko fune ma mos a nag balaa ñoo tàmbale waat nga joxe waat sa numéro en direct Sénégal gépp xam ne retour de nga. parce que ñëpp xam la. waaw ñëwaat naa man day jàll borom salañ salañ. waaw yaayu maam Cheikh. sama mm-hmm. numéro téléphone. 386 92 92. 300 yomba xam. 300. 86 92 92. boobu mooy sa numéro ménager wala sama numéro personnel. boobu mooy sama numéro numéro numéro numéro numéro mooy sama numéro ku ma woo jot ma. ku ma woo moom ngay jot man ku ma woo jot ma ak 556 35 35 bëri numéro ku ma woo rek danga may jot. kii mooy Ndeye Diallo dëggantaan Ndiaye. Ndeye Diallo dëggantaan Ndiaye salañ salañ. waaw waaw lan la ngeen waaw balaa ñuy tàggoo. waaw gërëm samay xarit yépp nag. waaw tubaarkàlla macha allah ndax damaa nekk marché zinc di fa jaay. Mhm. ñu baax bëgg ma. ku ci mel ni Serigne Ka gis nga fi mu génn ak man ci dàll Kamoor rek Baaba. Mhm. tubaarkàlla borom boutique sopp sëñ Fallou. Mhm. ah ak ñoom Fatou saw sama géer ña xoola Fatou Sow fi mu génn ak man mm-hmm. laaw la cat Marema Ndiaye mu ajaratu ku na maar moo ma defal ni sama bopp sama ki ne cër yi diis mm-hmm. moo ma defal yu baax yi ñu faw ma gërëm leen mm-hmm. wante nag di nuyu sam papa Mariasine may sa biige may sa biige Mariasine borom maami aller retour yi nee naa la ñàkk laa xam wóorul papa ka tiw tiw danga ni ma ka man la tararaw raw ka tiw <laughs>